ñu ñoo ko yéen si yéen kaay am na solo torop journal bu suñu làmb la ñu koy ubbee mu daal di ñëw ak ñun ci le B52 de Mbour le double couronné defi bi nga xamante ne nii défi fou la ko journal bi tuddee digganteem ak Balla Gaye numéro 2 mu nekkoon combat boo xamante ne nii bëri na ay coow yu ci am ñu ni Balla Gaye numéro 2 parewul woon waaye ci combat boobu la Bombardier daal di jëlaate woon li nga xamante ne moom mooy couronne bi mu nekk revanche boo xamante ne nii bëri na ay yëf yoo xamante ne nii dañu ko xaar ci ñaari mbër yi waaw bëri na nag li ñuy xaar ci ñaari mbër yooyu noonu Omar Waane nag fi mu toll nii nag Bombardier la journal bi wane ab nataalam rek lii nag bi mu gagné combat am bi la jàkkaarloo caméra bi di wax mu ngi xiiru nag gis nga ko ni xulli bëti yaramam tàng Omar fi mu toll nii nag tey yaramam dafa war a gën a mën a tàng parce que tey le B5 le le le le Balla tey moom la B52 tey war a dajal pour mu mor a nekk tey pour une deuxième confrontation nag moo tax journal bi di xamal Bombardier que na benn défi fou boo xamante nii tey rek Omar war na ko relever waat muy lan muy remettre Balla Gaye 2 na ko journal bi titré Omar. pour remettre Balla Gaye 2 à sa place Boucar ñëpp dañu ne Balla Gaye numéro 2 bi Bombardier daanoon baaxul moom mun nañu ko woowee noonu ñu ne Balla Gaye numéro 2 bi ñu gisaat léegi moom la ñu gisoon bu njëkk ba ca CLAF ba moom la ñu gisoon bu njëkk ba en 2010 11 12 ak 13. ñu ne ndax Bombardier mën naa mucc ci boobee Balla Gaye numéro 2. waaw ñu ne Omar nañu yéen yàgg rek waaye daal li leer ba rek mooy que ne rek moom Bombardier moom am rek mooy que mu ngi mu ci course bi ba Omar. ba tey ci suñu làmb Boubacar nduur mu daal di ñëw ak ñun ci 100 jour après nomination wu Bira Sène ci boppu CNG le 9 novembre 2020 la woon ba tey jii la di 16 février 2021. am na ci nag loo xamante ni yokku na ko ci ndax dañ ne ko yokkul yow yaa wàññi moom Bira Sène am na lu mu yokk ci làmb moom Bira Sène Omar moom la journal bi wone rek tey si xatam bu njëkk rek mu mel tey 100 jours la def si njiital CNG Omar 100 jours yooyu nag tey am na yoo xamante tey ay actes yu ñu posé lu si mel rek maanaam tey wàññi gi ñu wàññi njëgu licence Omar muy licence avec frappe licence sans ba si licence promoteur ak licence leneen la lu ama ama solo tey li nga xamante ne Siré Niang la ñëw mooy arbitre yi nga xamante tey dañ leen ñu réintégré waat leen mu nekk na lu ama ama am solo yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne nii lu am am solo la Boucar Ndour suñu làmb daal di ñëw ak ñun ci ñetti mbër yi nga xamante ne nii ku ci nekk wala ay mbër yi nga xamante ne nii ku ci nekk rek ñàkk nga kenn koo xamante ne nii boo ñëwee ci jour stade boo ko gisee dina la booster boo ko gisee dina la gën a yokk jom dina la gën a yokk courage nga ñàkk ko ñu ni Balla Gaye numéro 2 guy gi Siteu cat bu boy bambara bombardier ku ci nekk rek am na ku la jege woon ku wàññeeku ci yow ku ci nekk Omar am na ku la jege woon ku wàññeeku ci yow Omar ku su mel ni Balla Gaye 2 moom bi journal bi woon na Omar père Balla Gaye 1 di ñëw journal bi titre rek kon ku su mel ni tey ñàkk ki nga xamante moo tey Bombardier nekkoon manager am di ko ñaan tamit yàlla na ko yàlla yërëm waaye tam di Pape Dia waaye tamit ki nga xamante ni tey moo di père Aline Diop nga xamante ni tey pas gagné pour lui loolu la journal bi bind rek waaye que su mel ni Thiat Boy Bambara tamit war a gagné pour honorer la mémoire de Boy Bambara yàlla na ko yàlla ma Omar dafa mel ni ñooñu daal ku si nekk ñàkk nga koo xamante ni day Omar rek maanaam ku ku ku ku la cheroon la ni ñu ko mën a waxee. ku la dimbali la ku la jàppale la ku ci mel ni guy gi Mor Fadam dafa jàpp ci carrière am ni ko suñu borom jëlee ñu ngi leen ñaanal suñu borom jéggal leen yokk seen ay leer. ñi fi nekk suñu boroom rafetal ko ba lépp loo xamante ne ni bàyyi nañu leen bàyyil nañ leen ko rek ñu sàmm